rencontre bu am solo la tay maa ngi remercier monsieur le ministre xam ne na fi tay ci journée bu am solo moy journée la bo xam journée mondiale la mën nañu wax ne téeméer ak fuk pays ñoo si bokk si journée bi Sénégal aussi ci la bok mais maa ngi remercier le fait que mu xalat éducation nationale ñëw ba fi su ñëwee ci 21e siècle di wax ne mënatuñu def dara sans internet mais encore faudrait-il que internet bobu ñun ci suñu biir classe ci kër yi et partout

Le positif de internet ñu pour que ñu utiliser pour l'enseignement enseignement apprentissage parce que nous ngi au siècle sans internet waaye gis internet créé avons journée au niveau mondial internet donc pour que ñu utiliser internet en toute sécurité Je rappelle également que ministère nous ñu ngi Sud di wax ne président de la république loolu la wax que ministère yëpp nañu ànd ñun ñëpp ñu liggéey donc léegi tey xam nañ ne fii ci Sénégal en tout cas ci àddina bi éducation nationale mënul am sans le numérique mënul am sans internet waaye loolu nag il faut que ñun ñu mun a ànd ñun ak ñoom ak yeneen ministère pour que suñu xale yi ñu mun a am ay documents yu wóor suñu cliquer suñu dugg fenn internet ñu xalaat ne que lii li may def ni vidéo bi may dugal ni message bu may dugal ni mun na am mënutuma ko dindi benn et mun na am encore addina bi yëpp moo koy gis.